waaw kon ñu jéema sofaar rek ci fi ñu wàccoon sunu kàddu kerek lëndi wa yajibu alayhi hifsu lisanihi mooy bunt bi nga xam ne fi lañ war a tàmbalee tey wa yajibu dina war alayhi ci mukalaf hifsu lisanihi mootu la meñam nit ki war na sàmm làmmiñam ba lépp loo xam ne taas la ay gàkk-gàkk lu dul noonu waru caa génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi nee na jullit dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne fexe na ba jullit ñi mucc ci ayu làmmiñam ak ay loxoom min al fahsaa ci ñaawteef والكلام القبيح أقوح جبن وأيمان التلاخ أنجن الفسح نكونون وانتهار المسلم أقد جلد وإهانته أقد كدويدل وسبه أقد كنغني وتخويفه أقد كرغل ويد كتيتل للبنك في خير حق سرهي كلد الأقصريان ne nit ki jullit bi na moytu gannaaw ba mu xamee ne war na ci moom wattu làmmiñam ci lépp lu ñaaw ak wax ju bon ak ngëñ ci fase ak di gëddub jullit ci lu amul benn sabab walla mu di ko doye dal ak di ko ŋàññ mooy di ko xas ak di ko tiital ci lu dul aqu sharia waye jibudina warbata aley ci moom mu kalaf moomu ifsu basari mottu gisam comme ni ma la ko sante nga watto say loxo noonu nga war a wattoo say bët minan nasari ci xool ilal harami jëm ci lu araam lépp loo xam ne islaam daf la ko araamal nga moytu ko siggi yem ci mbir taxun ñuy wax waaye nag yem ci li ñuy tere gën a orienté say bët di jekk-jekkal kooku sariya da ko tere ci lu araam wala yehilu du dagan lahu ci mu an yansura muy xool ila muslimin jëme ci jullit bi nasratin ci xool tuusihi xool bu koy lor ila an yakuna lu dul dafa nekk faasixan di ab saay-saay bu dee koo xam ne jubut ab kàccoor la fa yejjibu dina war ijraanuhu tongum tong buñ ko waxee mooy nga surveiller ko ba bum la yàqal wala bum yàqal sa njaboot wala bum yàqal sa dëkkandoo wa yejjibu dina war ba tey andi ci mukkala fi su jëmee jawaari mu wattu mbooleem ay cëram mastata ak kàttanam wa an yuhiba te muy bëgg lillaahi ngir yàlla lépp looy bëgg bëgg ko te yàlla tax bul ko bëgg ngir intérêt personnel wayib yubqida ta ngay bañ lëxoo ngir yalla boy bañit bañal ngir yalla nit ki comportement ham neexul la neexut Islam, jikom neexut islam nga waxtaan ak mom mu lank fetter lu baña depp sañ nga bañ ngir bañ gi islam bañ wayardaa te ngay lëxoo ngir yàlla waaye xam daba ta ngay mer lëxoo ngir yàlla booy gërëm nit ki gërëm ko ngir yàlla boo koy mere mere ko ngir yàlla ngir li mu nekk te yàlla gërëmu ko wa yaamuru te muy digle bil ma'rufi ci njëkk wa te muy tere anil munkari ci lu ñu sib wa yahrumu dina aram alay ci mu kalaf alkashi bu fen bokki fen moom bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg fa yàlla bokkaale yàlla ak lenn mooy bi ci njakk dëngee sa ñaari way jur mooy ñaar troisième ba mooy fen wax fen ak seede fen ñooyam at nit ki wax lu dul dëgg nga dëggal ko mbaa yow nga wax ko wal xiibatu ak jëw wax ci nit ki loo xam ne bu teewoon doo ko wax wan namimatu ak rambaaj ba ko Fatima defee te lam doon wax ndeysaan wax ju rafet loo oon yonent bi na ko xaaxtandekul nga tëfli mu tëfli muy lumbu deret mu ne ko lu ma lay jur jur jur jur li bu gennuton toon kenn mënu laa te dem safara kon nañ moytu jëw wal kibru ak rëy rëy baxut la yadkhulul janna man kana fi qalbihi misqaala saratin min kibrin yonent bi neena lu toll ni pep atom ni pep sarra xol bu mu nek ci borom du dugg aljina ëllëg yomal xiyaam wal ujbu ak nawjef manam فوكره دمو كو بفات يالا ميغا خامني مولا عمل جوخلا كاتن جوخلا اتال بايلا لا سا ساغو ورياو انغيسل موميت كونا خامنا ني بو ديمي سي ارايت لا شي كوشو بي دين فسالك لا شي يدون يتيم ولا يود على طعام مسكين فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون allusinum yura'una wa yamna'una al-maa'un naka noonu kii jëf di wane wanehu na ko leer ne day sonnal boppam ëllëg bu ëllëgee suñ borom dana ko ne dellul te ña nga doon wan sey jëf waaw ñu fay la te foofu amul retour wa sumaatu ak déggital walxasadu ak kañaan alxasadu laa yasut aji añaan du doon sang mukk ci maasam wal buxdu ak nay wa ruxyatul fadli ak xool bëtu ngëneel nay garab la ca safara ay wanqaasam moo tiim àdduna képp ku ko bàyyiwul moytuwoo ko bu ëllëgee safara mooy dooni sa dëkkuwaay gën naka noonu alal xayri ci keneen wala am ak piisu wala ak regeju lu mel ni piisu regeju nag ci soxna yi la ëppee ak góor ñu sàggan ñi wala abasu ak fo wa suxriyatu ak reetaan wa sinaa ak njaalo wa nasaru ak xool ilal ajnabiyati jëmee ci jàmbur bu jigéen wa talasusu ak di bànneexu bi kalaamiha ca waxu ndaw sa wa akulu amwaali naasi ak di lekk alalu nit ñi bi xayri tiibi nafsin ci lu dul seen teeg bakkan ak noo mën a notee nit ki noo mën a naxee nit ki te tegul ci yoon rek nanga ko moytu yow jullit bi rawatina yow mu kalaf bi wala akulu ak di lekk bi safaati ci tinu maanaam alalu nger yow mi ñuy nger ak yow mi nger yépp dañ leen ko tere aw bi diini wala diini diini lu wa taaxiru salaati ak di yéexi julli an awqaatiha ba waxtu julli paase ci lu dul ngànt wala yeexilu du dagan lëxoo ci mu kalaf suhbatu faasixin àndaaleeg faasix faasix mooy bu la neexee nga firi kàccoor ab saay saa lépp a ngi ci wala mu jaalo sa tuxoo du caagin toogaaleeg moom li xëyri daruratin ci lu dul lor wala yàlla bu bul di sàkku rida al maxluqina ngërëmal kiñ bind ni yow bi suxtil xaaliqi ba sànjuloo aji bind ji lim ci na ma wax mooy terewul la nga sàkku ngërëmu nit waaye topp ngërëmal nit ba faat ngërëmu yàlla la la yàlla tere qaala wax na allahu yàlla subhanahu tudd naa sellam wallahu yàlla wa rasulu ak yonentu ma ñu moo gën a yeyoo an yurdoohu ngir mu gërëm in ndem nekk nañ mu'miniina di ay jullit ngërmaande daal yàlla kub yonentum waxaala wax na xale yàlla nekk ci moom assalaamu jàmm moom yonentu yàlla muhammad laa taa'ata dégg ngay topp li maxluuqin ñeexal ki ñu bind ni yow fii mahsiyatil xaaliqi ba mooy aji bind ji di yàlla santaane koo mën a topp ndigalu koo mën a topp yonent bi nee na daganut ci yaw yow jullit bi rawatina yow mu kalaf mi nga topp ko ba mooy yàlla mi nga xam ne mooy aji bind ji wala yahilu du dagan lahu ci mu kalaf an yafaala muy def wala muy jëf fihlan benn jëf xataa yaxlama te xamul ukuma lay yàlla ji fii ci jëf la kon képp kuy dugg ci mbir na nga gëstu mbir moomu ba xam jubluwaay ba lan moom lala ca war nga teg ci sa tànk waaye lépp loo xam ne xamoo ca santaane bi yàlla xamoo loraange ga ca nekk boroom téere bi nee na daganut ci yow nga koy def lu dul danga xañtu ba xam lala ci yàlla sant mbokk yi kon ñu jéem a wàccee foofu sunu kàddu boo gisee ñu def ko benn audio ngir lan ñi nga xam ne dañuy bëgg di ko topp di ko jël di ñaan yàlla may ñu dégg ak topp lu ci leer ñu sante ko yàlla lu ci lëndëm ñu jéggalu ko te xam ne seen mbokk mu xeebu Mouhamed Lamine gay mi ànd ak yéen ci axdari bu am solo bi moo ci nab na di ngir xër ci xam-xam ak bëggu ko ak am yéene jotal ak matal ak leeral waaye lamu laaj yëpp matewu ko kon ñu xaarandi sunu sëriñ comme ni ma ko waxee woon ci darsu bu jàkki bi sëriñ Sam Abdourahman moom bu ñëwee li ci manqué incha allah danañu laabire jot li ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu